waaye jumaa jàkk ci fi ne rëy na rëyaay koo xam ne mën nañ faa julli ajjuma bu boobaa it man ko mën nañ ko faa def wa tawxiiduhu maanaam it loolu ñuy def lépp it na yàlla rek na tax jumaa jooju ñu tabax ak julli ngir ci julli lépp buñ koy def na yàlla rek tax wal xutbatu ajjuma it mën ta ñàkk ñu def ci ab xutba xutba boo xam ne day wax nit ñi ci li jëm ci seen diine te bu nee diine day yóbbaale lépp ci diggante nit ki ak ji dox digganteem ak boroomam ni muy jullee ak ak ji nga xam ne mooy dox digganteem ak moroomi jullitam salaatu ma taysar min al min al nawafili hinda du xoolil masjid bu bu kii ci jumaa ji bu nuyoo def tahiyatul masjid julli ñaar rakka ba noppi bu ko neexee lu ko sob ci naafile mën na koo def bu ko deexee mën naa def ñaari rakka bu ko defee mën naa nekk ñeenti rakka bu ko neexee mën naa naafila it lu ko ëpp waxtu wu dikkee ci juma ji loolu war na def am nga fi foo ne nga faa julé te na nga fay julé da nga am jàmm ju toll ni ña ca bu boobaa man nga faa jullee waaye bu fekk iqamati faraidihi allati faradaha alaykum daakum biha ila adratihi li yukrimakum wa'dharu min فإن في طبعها تحرضا لهلاك مضيها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعداء الذات ففرغوا له القلوب محل نصر الرب وطحروا له, له وطحروا له الثياب والأجساد تفوسوا بالقبول والقرب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الراسخين الله أكبر الله أكبر سمي الله أكبر حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Allahu Akbar. Allahu Akbar. di fessale nonu. ndax jakka bo xasse dend ak mom la salata li jaaril masjidi illa fil masjidi julli do bu fekke dekk nga ak jàkka balaa sa bax deug da nga dem julli ci bir jakka ja kon ta inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar dee ngeen ma jàng ko ci xutba bi julli dëgg dëgg julli boo ko dee def dana la tere ñaawteef tere la lu luñ sib dara lu bon dutoo ko mën a def kon julli looloo tax sëñ bi fonk ko rawatina nag julli mbooloo ndax sëñ bi wax ne wa qiila laa tafuutu abda rabbi jamaatun illa bi fiili dambi wax na ci masaalik ne wax nañ ne giling mbolo du fat ab jam ndare bu nga def yalla lu ko naqari mu sanctionné la tax nga tardé jullit mbolo nga ni fo tardé mbolo war nga ah man de xamuma duma def yalla non la ko señ bi waxe kon nak ngeen ñepp señ bi neena mi ngi leen di soñ ci ngeen dundal ko diko soxat ni ngeen def bam jëm jëmm ba taxaw gades, nak soxat ga dess garab boko ba nopi dangay yor euh, raakol wala euh, ab sotti euh, ab soxatukaay bët bi seen nga sotti ca ndox mooy tax muy dund kon nag na leen ci yàlla jàppale te ngeen di ma mi ngi leen di soññ ci ñaar yëpp daal ngeen ngeen suuxat lislaam ji ba dara bañ cee له بعير شكا من عقل الدراري وهو الذي جاء حور ظبي يكلمه والدب كالمعوت هو وهو الذي انشق تصديقا له خمر والجس عنا له تصويت ذي عذار وهو الذي مج فوق البير وارتفعت مياعه كطفاع الموج بالخبار هو الذي لا أضاء للدعر مادع حرصا على ذكر ما قد عاد من شياري لا قصد عد الذي قد من شرف لأن ذلك أعيان كل مفتكر فكيف يمدى خلق وخالقا أجر امتداء حلوا في موكب سواري فكيف يمدى شيخا وخالقه أجر امتداحا له في المحكم سواري وهو الصبيع الذي أبقي سبعته إلى الممات ويوم الصفي والكبار يوم يفر من المولود والده فيه وعين من الأباع بالعذار يوم يفر خليل من مخالد يوم ترامي به النيران بالشرر وذلك اليوم لا يخني بنون ولا مال سوى مخلص لله مقتدر وذلك اليوم لا ينجو سوى ورع قد كان ذا توبة يوم تكون يا الأمر صغيرة لكل ذي سبع مع كل ذي نزار يوم به يكسف الرحمن عورة ذي شرك وعورة فسق وذي غبار يوم به يسرر الرحمن عورة ثوب وعورة صدق لشهاري يوم يصير جميع الخلق قاتبة لس الجلال ويجسم كل ذي يوم تقول جميع الرسل والكرماء نفسي سوى المنصر من المضاري يوم تقول جميع الرسل والكرماء نفسي سوى المنتقى المختار من مضارك عليه